Touba xibaaru marax yi ponk ca gën a fës procès bu Cheikh Béthio Thioune atte ba kon ñu ko doon amal ni ki euh, tey jile défense ba nag maanaam ña nga xamante ni nii ñoom ñoo fare ca geneen wet ga la ñu xamle nag bokk na ci ñuy lay rek Cheikh Béthio Thioune procureur nag kaddu yi mu yëkkati woon di tuuma lépp nag la ñu daal di teg ci suuf di sàkk rek ñu bàyyi kooke nga xamante ni moom mooy Cheikh Béthio Thioune ndax jàpp nañ ni euh, seenu client tey jile amuñu benn preuve maanaam lenn luy ni euh, yooyule beneen ponk ci biir xibaar yi sunu séem yi koy wax loole nag bu nu ko déggee ci xarala yi rek lañu ko daal di jaarale samp ko nag ngir dooleel couverture maladie universelle ci teewaayu euh, njiitu jëriñ bi di Mouhamed Boun Abdallah Dionne moom nag yëkkati na ay kàddu rek jëm te matuwaay matukaay boobu nee na nag loolu dafay tax rek ci wàllu wér-gu-yaram euh, Sénégal nag gën a am ndëgër laay daanu addu tamit euh, ci mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb professionnel yi di yëngu nag ci dem beeg dikk bi ca aftu nga xamante ni nii ñoom ñoo yore nag ligne 4 ba ña ngay sàkku rek ñu jox leen seen ñaari weeru euh, payoor coow li nag nee nañ dara waralu ko rek lu dul euh, protocole bi nga xamante ne xaatim nañu ko ci diggante GIE yi ak euh, AFTU daañu addu tamit ci wàllu kaaraange ñeel bâtiment yi diggante rek benn ay bés ñaari doomu aadama ñàkk seen bakkan ñu ne nag faaw jumtukaay ñu xolaat ko bu baax a baax jumtukaay yooyu bokk na ci ceinture de sécurité bu weesoo loolu yi tamit architecte bi ndax doon na ko xarañ lay bâtiment maanaam ñi nga xamante ni ñoom lañuy tànn ngir rek tabax ba ci ñooñu ñu duppee agent préventeur ñu war a nag teew ci chantier yu ne euh, lu soxal nag kon bëccëg bi ñu jagleel wàllu kaarange euh, ñeel nag këru liggéeykaay yi amal nañu ko ñaar fukk ak ñetteel bi euh, niki nag ren jii ñu màggal ko ci talaate ji lépp caisse de sécurité sociale di ñaax askan wi ñu gën a jël ay matuwaay ngir nag mën a fegu ci bépp jéye boo xamante ni nii mën na leen a dal ci seen barabu liggéeykaay mbokki ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxirloo ti ñu faram xibaar yi dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak procureur nag ak li nga xamante ne rek moom la doon sàkku euh, ci Cheikh Béthio Thioune tey jii ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo koy layal weddi nañu nag bépp tuuma ba mu set wecc di sàkku rek euh, ci seen client boobu nag ñu daal di koy bàyyi ñoom avocat yooyu euh, di xamle nag ni kii di cheikh bi nag lañu koy toppee daanaka amuñu ci benn firnde ba tax na nag ñu ne faw rek ñu xoolaat yi fi jàpp leen ni procès bi nag kon ñu ko daal di nag kon ubbiwaat ni ki alxames ji ëllëg ñu ne bis boobu sax ci lañu fas yéene joxe verdict bi leeral yi ak Abdourahmane Diallo. mardi bi yëpp avocat wu défense bi lañ ko jagleloon fukk ak juróom benn ci ñoom daal di taxaw ci baar bi ku ñëw ku ne dàq lépp li nga xam ni tegoon nañ ko ci ndodd ñi ñu tëj. dañuy ñoom dañuy def mbooloo pour def ay jëfin yu ñaaw mais loolu yoon def ci jàpp bu ngeen di def mbooloo pour ay jëfin yu ñaaw da ngeen koy préparer ba pare mais ki nga xam ni yow yaa ngi soog sa kër xamoo lu ne xew ci biti ay jaamur yàlla jóge fa la ñëw. dugg si biir kër indi la ay jafe-jafe mais da ngay da ngay riposter surtout que ñi nga xam ni ñooñu foofu dafa sécurité parce que foofu c'est un domaine privé donc en amont même on peut dire que ces gens-là n'ont pas protégé la sécurité de Thiantacour. fukk ak juróom-ñeent nit yu ñu joxoñ baaramu tuuma ñoom ñëpp a ci tribunal bi ñi leen di layool jàpp ni ku nekk ci ñoom dañu la war a àttee ci taxawaay bi nga xam ni moom nga am ci mbirum Faat Baara Sow ak Ababacar Diagne. ku nekk li nga xam ni moom nga def moom lañ la topp liñ la toppee ndax sax ki nga àndal def na. ku nekk dañu war a xayma sart bu baax ndax yow liñ la toppee yow nee nañu dañu ko suul nit ñu xool ndax suul nit boobu jaar na yoon ndax am nga kayit bu la may euh, kattan ak yoon pour nga suul boo ko suulee muy keneen dañ lay topp mais waxuñu nag ndax rey yi jaar-jaar yi yooyu yëpp am na. procès bi nag jeudi lañ koy weyal ñii di waa partie civile ak procureur bi bu ñu amee tontu ñu def ko laataa nag kii di juge bi di jël dogal ci daan yu ñuy laaj. ñu koy jaajëfal Abdourahmane Diallo kuréel bi nga xamante ne nag moom moo ŋànk wàllu charte yi ci pencum ndawi réew mi moom nag daal nay rek kon sëgg ci projet de loi boobu nga xamante ni jëm na ci ñu jëlee fii premier ministre fii ci euh, Sénégal ñu ne nag euh, kon boobe projet daal nañ koy adopté njiitu réew mi nag euh, moom moo amoon boobe bëgg-bëgg fësaloon na ko sax ci bi ñi rek kon sampaat gouvernement bu yees bi lu soxal nag première bi jàpp nañu ko ñeenti fan ci weeru d'appui euh, conseil ñu gën ko xam nag ci GRADEC di GRADEC di xeex lépp lu soxal euh, nag wàllug euh, démocratie ñu ñuy fexee rek ba gën koo ñoŋal fii ci Sénégal ak yorin wi ñoom nag àdduna ñu ci woteeg faluk maanaam gox-goxaan nga xamante ne nii ñu ne nag ñu bari dañu jàpp ni dañ ko war a dàq baatum 2024 ñoom loole joxe nañu ci seen xalaat GRADEC nee na nag ak lu mën a xew rek déggoo moom moo war a am yemul ca loolu GRADEC tamit daal dinay rek yëy yàbbi ci premier ministre poste biñ ne dañ koy jëlee ci euh, Sénégal euh, Pape Fare ngi jafara ba xalaat bi ñu jëbal ne dañuy dàq élection ba 2024 li nu mel mënta am gannaaw waxtaan bu yaatu di xalaatu ñi nga xam ne ñoo nekk waa GRADEC ñoom mbootaay société civile boobu jàpp ne ay coppite war nañ ko amal ci code électoral bi gannaaw bi ñu weesoo jongante njiitu réew mi. loolu acteur politique yi ñoo war a toog waxtaan mu nekk waxtaan bu sérieux boo xam ne dañ koy teg ci dëgg teg ko ci yoon bu ko defee nit ñi mën a xool lan moo mooy vraiment donc solo bi. waaw bu fekkee jubóo am na ci loolu amul problème mais bu fekkee ne jubóo mën ci am vraiment li ñu bëgg mooy ñu respecter le calendrier républicain par exemple bu yàggul gis nañu mbiru parrainage bi ak coow yi ci am lu ci tey mbiru caution dugal nañ ko pour élection locale ak yeneen ak yeneen changement yoo xam ne am na ci mbiru mode de scrutin bi. lu ñeewal jëlee fi poste premier ministre Gradec jàpp ne yoon may na ko njiitu réew mi waaye nag xel mën na cee teey. président am na droit proposer changer constitution en passant lenn yi par. la l'assemblée wala ah, par euh, référendum sañ na ko am na ci droit léegi nag ndax loolu euh, li mu ci jublu lan la loolu mooy débat bi parce que xamuñu ko kenn xamu ko waxu ko kenn ba léegi campagne électorale bi waxu ci dara donc jékki-jékki rek génnee ko noonu am na ñu mu tiital GRADEC nag li nga xam ne moo nekk gëm-gëmam moo nekk démocratie bu Sénégal ngir mu dal faaw waxtaan yu yaatu am seen i diggante ku ci ne nag daal di changer sa comportement. ñu am matière boo xam ne dinañ ko mën a waxtaanee pour que mu am ay ponk yoo xam ne dinañ ci mën a juboo pour que vraiment réew mi mën a dem ci dal euh, euh, manque de confiance ak suspicion bi jóge fi. déggoo bi tegu ci kaw dëgg ci kaw loo xam ne amal na ñëpp njëriñ yow ak ki ngay waxtaanal su ngeen ci waxtaanee. d'habitude di nga am dina am pexe. ab forum de parti politiques waa GRADEC daal di koy amaloon nag ngir fexe ñu waxtaan ci diggante kujje gi ak nguur gi naka noonu lu jëm ci wàllu élection fii ci réew mi ak naka lañuy def ngir dëggalal sunu démocratie. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi muy couverture maladie universelle képp ku bëgg a faju ci Sénégal ñu mën la kaa euh, yombalal lim gi nag euh, néew na ndax ci atum 2012 téeméer boo jël euh, juróom fukk yi kon mënoon nañu rek kon daal di kon faju waaye dañu xool ne léegi si téeméer boo jël ci ñeent fukk ak juróom-ñeent ci la ñu toll ñu ne nag néew na am na nag loo xamante ni samp nañu ko jaarale ko ci xarale yu yees yi ñu duppee ko sunu CMU loolee nag tey jii lanu ko daal di fësal samp ko ci teewaayu njiitu jëriñu Mohamed Mohamed Boun Abdallah Dionne leeral yeeg Mouhamadou Lamine Ndiaye. juróom benn téeméer juróom ñaar fukk ak juróom benn mutuelle jot a taxaw depuis bu ñu créé couverture maladie universelle ca 2015 bu ñu sukkandikoo ci premier ministre Sénégal am na yéene ak mbëbët dëgëral couverture maladie universelle. programme mu CMU bi may nañu nag kon ñu daal di rek mën a ñoŋal lu tollook juróom benn téeméer rek juróom ñaar fukk ak juróom benn mutuelle de santé loole nag nekk ab taux boo xamante ni couverture boo di xool ci réew mi yëpp la boo koy xayma muy téeméer booy jël nga am ci ñeent fukk ak juróom-ñeent tey ji boo xoolee ñu ngi woon ci téeméer boo jël ñaar fukk ci atum 2012 loole nag nekk jéego yu am solo yoo xamante ni war nañ koo yokk yëgal ko waa réew mi fexe ba li nga xamante ni moo di wàllu askan wi ci wàllu social mën a taxaw nekk ci système bu mucc ayib. buñ sukkandikoo ci directeur général couverture maladie universelle plateforme bu bees bi ñu doxal tey tuddee ko sunu CMU ab tontu la ci problème mu financement bi. boo xoolee suñu plateforme suñu CMI dafa nekk loo xam te dafay gën a yombal nag jëflante bi ba noppi nag tey ji tontu la kon ah, ci wàllu financement bi nga xam ni CMI mu ngi koy am ci bi nga xamante ni nag kon dafay yombal li nga xam te ni moo di ah, dajale cotisation yi la transformation. boo xoolee wàllu coppeeku ci wàllu nag digital kon CMU daal dinay bindu nag ci ab boo xamante ni réew mi yëpp la soxal bu yaatu ci kon rek mën a dugal ci li tubaab di duppee numérisation mu di kon wàllu paiement yi ñu ko def ci ordinateur yi mu bokk na kon ci li nga xamante ni ab cadre la bu yaatu bu wër réew mi yëpp te ñu jëmal ko euh, Sénégal numérique 2025. 2015 ba léegi couverture maladie universelle ñu taxawal ko. tey muy dugg si ñuy wooye digitalisation lépp si ngir gën a mën a ñongal ay mission wam suma assistance nag euh, mi ngi ñaawlu rek euh, dogub euh, contrat bi dox diggam ak limak AIBD suma ñu ne nag lépp loo xamante ni dëxañ nañu ko ci cahier de charge boobee ñoom waa suma assistance nag daal di nañu koy sàmm waaye nag ak yëf yi ak jubadi da cee am donte demuñu ci yoon faaw ñu biral tamit ne yëf yi war nañu koo xoolaat loolu yëpp nag leeral nañ ko askan wi ay kàddu ñu yëkkati ci kanamu taskatu xibaar yi ñu teewlu njiital clinique boobee di docteur Babacar juillet 2017 lañ ko commencé préparer aéroport bi war a ubbi en décembre 2017 le 8 décembre même bu ñu ko jàppee bu baax d'accord donc euh, cinq mois avant ñu am idée signer ñun benn contrat donc on s'est retrouvé là-bas avec trois entités médecine du travail euh, contrôle sanitaire et service d'urgence bi ñu demee ba contrat bi di fare am un an ci dispositif yi amoon nañu droit def benn préavis ñu jot préavis bu ñuy wax ne que contrat bi Euh, dañ koy seetaan fi ma commencé di préparer ay nit ba def samay plan <laughs> le 22 ma jot benn lettre bu may wax ne contrat bi jéem na duñ ko renouveler mais dëkk bi tamit def naa am na yoon am na ay loi fi am foofu laa contacté ARMP moom mooy service bi géré affaire u marché yi ñoo ñu xool dossier bi yëpp ne ma yow société bi nga nekkat société anonyme la société privée anonyme amul benn obligation di def ay cahier de charge Euh, Kumba Matlo ak Thierno Laurent Mendy ñoo taataan ay euh, kàddoom ca mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo ëmb professionnel yi di yëngu euh, ci wàllu dem bi ak dikk bi di aftu foofee nag sagarang fay xeeñ ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore ligne 4 ba nag ñaari weeru payoor la ñuy laaj ak dundinu métti woo xamante nii ñu ngi koy dund ci seenu liggéey ñu nag coow li dara waralu ko rek lu dul protocole bi nga xamante ne xaatim nañu ko ci diggante ay GIE ak aftu li gën a yées nag moo di ne fukki at ak liggéey nañu ko Euh, te amuñu contrat ñu teewlu Moussa Kébé euh, moom moo wax euh, kon ci turu liggéeykat yooyu. li gën a indi li gën a indi lii nag mooy mois bi passé ak bii mois mois bi passé sunu salaire dañ ci jotul jotuñu ci sunu salaire tey comme su leer nañu bii mois tamit aussi du du du demee ni deuxième mois bi bii mooy deuxième mois bi xam nañu noonu la dem noonu la nar a demee noonu la nar a continuer léegi nag li ñu mën mooy li nii ñuy liggéey loolu lañ mën. wàññi temps bi oto yi di bloqué kii bi fii parce que moom ci jëmi boppam moom ci jëmi boppam amatul oto ci GIE bi. suñu patron ñun jaay na lim moom lim am yëpp jaay na ko. léegi nag frais de bureau yi la ñuy fayee ñun fa oto yi li ñuy daw dañ ciy génne 2000 francs chaque jour oto bu nekk ci loolu la ñuy fayee comme moom amatu fi oto léegi ñi nga xam ne nii ñoo fi am oto nañ jël seen responsabilité jël seen xaalis récupérer ko ñun ñuy liggéey ñu ñuy fay voilà wa ilaa nii lay continuer garage bi di bloqué nag ba ba nii la ñu di liggéeyee loolu daal mooy su mooy suñu problème. ñu wax rek ci tabax yeeg seenub euh, kaaraange lu gàtt gàtt ñaari doomu aadama ñàkk seen bakkan ci benn ay bés ñu ne loolee euh, ëpp na ñu ne nag li bokk na euh, ci ñàkk jumtukaayu xarañ bokk na ci ceinture de sécurité ci fi nga xamante ni fii la ñuy tabaxee waaye tamit ki nga xamante ni moom mooy architecte bi ndax xarañ na lool ñi ñu duppee agent préventeur ndax fu chantier nekk ñoom teew nañu fa tontu yi ak gëstu bi ñu leen indil tey. kaaraangeeg bâtiment yi des nañ cay wax bëri na lool yoo xamante nit la tax mu daanu fii ci diwaanu Dakar bëreetut ba tax na itam ay bakkan ña nga cay rot ci fan yi ñu génn lu ko war bëri na. gars yi du ñu nangu jël ay matériels yi doye quoi ay safotaay xam nga sooy tabax ne war nga am safo nii quoi nga def safo bi nit yi am si quoi. un ouvrier bu yéeg si kaw di yéeg war liggéey à un certain hauteur euh, code du travail sax dana 1 mètre 80. da nga war a takk ceinture de sécurité bi nag boo ko takkee kase kase dayul mais da ngay il faut nga créer fa nga xam ne fa nga kay takk. mun nga dem si benn chantier yow war a dawal engin jàngoo ko munoo ko nga ne lii yomb na nga bëgg ko def. nga indil sa bopp problème. léeg-léeg sax càggante wala ñàkk xam tax ñoom ñu moom kër yi du ñu xam lu ñuy def waaye chantier bu nekk dafa war a am kuy saytu kaaraange gi naam itam woote nañ ab loi ngi aar liggéeykat bi. kaaraange ouvrier bi rek moo ma tax a jóg li ma soxol yëpp mooy ouvrier bi protégé wu liggéey xëy wàcce sans aucun problème dañu jël suñu mesure di surveiller ouvrier yi seen lieu de travail dañ fay dem di def le tour du chantier on fait le tour nun duñu toog benn place te boo surtout les garde corps nun dañ ko fonk planche boo gis de am garde boo tëbee rek da garde ngay teg boo tegee garde c'est pour protéger le personnel. li xaw yenn saa yi mooy da ngay gis ko xam ne day bëgg tabax këram mu jël benn mason bu nekk ci koñ bi wala benn groupe de maçon ñooñu ñëw tabaxal ko këram alors que ñooñu noonu amuñu expérience wala expertise boo xam ne nii dafay doy pour tabax kër gi beneen aspect bi mooy booy tabax dafa war a am ay ay intervenant dafa am ñoo xam ne ni dañ ci war a participer mu nekk euh, architecte bi mu nekk euh, maître d'œuvre bi mu nekk euh, bureau d'étude bi ki nga xam ne mooy defar plan yi mu nekk bureau de bi moom mooy contrôler plan yi mu nekk entreprise boo xam ne nii dañ ko war a xam ci ci ci ci compétence pour réaliser loolu donc ñooñu dañu war a intervenir. gouvernement Sénégal am na ay loi ak ay textes yoo xam ne buñ leen toppee dinañ aar nit ñi aar euh, nit ñi ak ni ñuy liggéeyee parce que liggéey bu nekk dafa am yoon bu muy jaar mais boo demee si chantier respecté wu ñu topp ñu li loi bi wax ci liggéey bi ni muy demee. amul ñoo xam ne xarañ nañ ba nga xam ne dinañ xool ñuy liggéey nan lañ war a defee dañuy am problème mun nga dem ci chantier boo xam ne bu ñu amul plan de sécurité ak euh, plan d'hygiène ouvrier nu leen neex la ñuy def. ñoom ña cay yëngu di woo bi ak chef de chantier yi ñu jël seen bépp matuwaay. gouvernement bi jóg comme ni jógee nii wax ci encombrement bi li ñuy wax nii ni dëkk bi mel loolu yëpp ci affaire euh, organisation la organisation nag dëkk bu nekk daf ko war a am. pour que affaire yi dem yoon parce que bu ñu ko amul yàqu-yàqu yi dina bëri. non seulement il faut sensibiliser les maîtres de l'ouvrage il faut aussi mu am benn prise de conscience parce que généralement su fekkee les marché publics. de l'administration su général yu si bëri dañuy lancer appel d'offres nga xam ne lu si bëri dina am ñëpp mais li gën a bëri mooy ñi nga xam ne c'est les marchés privés muy ñi nga xam ne dañoo am seen xaaj di tabaxal seen bopp ñooñu forcément duñ lancer appel d'offre donc mën nañ ko jox benn maçon boo xam ne ni da leen tabaxal ainsi de suite. waaw ñi nga xamante ñoo yor chantier yi nañu jël seen i mesures di teg des préventeurs dans les chantiers chantier day am préventeur chantier sans préventeur c'est des risques ouvrier bu ñëw sax ouvrier yi normalement dañu war a xool ñi nga xamante ne ñi chantier nga xam ne amul préventeur ñu ne ñii duñ fi liggéey. tànn sa kaaraange doon na itam tànn sa wérgu yaram loole la ñuy wéyee ci biir chantier yi waaye léeg-léeg itam nga gis ouvrier yoo xamante nit dañuy fàtte bile mbir Habib Faye Mardien cant ak ngërëm ñeel na leen ci gëstu boobule ñaar fukk ak ñetteelu euh, bëccëg bi ñu jagleel euh, fegu gi nag ñeel ji yi mën a am ci barabu liggéeykaay euh, tey ji lañu ko màggal ci talaata ji caisse de sécurité sociale di ñaax rek ci matuwaay yi ñu mën a jël rek ngir fegu ca yooyee nguurug Sénégal moom it ne am na ci taxawaay Cheikh Diop. jëye ji nga xam ne daal dinay am ci immeuble bi daal dina tax bépp question boo xamante ni rek jëm na ci wàllu kaaraange ci bërëb bi ñuy liggéeyi daal di yëkkatikuwaat kes bu sécurité sociale def ab occasion ci journée bi nga xam ne rek daal dinañ koy jagleel lépp lu soxal wàllu prévention des risques professionnels mu daal di àddu ci wàllu wi. c'est-à-dire bi yëpp tey soo ko jëlee trois millions à peu la nekk deux mais lu si am solo du nombre bi Sénégal mi ngi toll si mille quatre cent quatre vingt quinze accident benn rek déjà tiis la tiis la métti na si njaboot yi métti na si travailleurs yi waaye aussi mett na si entreprise yi. ngir janook ak mbir mu ni mel ay lee daal di ñaax askan wi ngir rek ñu gën a jël ay matuwaay ci wàllu wi. ñëpp ñu ngi xam ne ñooy partenaires yi di leen yée di leen tette waaye aussi. di leen xalaatloo ci li nga xam ne mooy jumtukaay ak li nga xam ne moom a liggéeyee ba jëfandikoo prévention mu nekk li xam ne day aar askan ci loolee nag nguur bu Sénégal desu si ginnaaw benn yoon mi ngi xam ne rek ne dina jël ay dogal la. ñu gën a bàyyi xel ci li nga xam ne mooy suñu warugar ñu ñëpp boromu xëy bi kii liggéey. n'est-ce ñëpp war nañ ci bàyyi xel loolu nag ay matukaay la laaj ay jumtukaay évidemment nguur gi moom dina ci dox li nga xam ne mooy waay wàllam ak pàccam mooy fexe ba di yónni ay ndaw ci bérébu liggéeyukaay ñuy saytu ni ñuy liggéeye ndax yëpp mot na. ñaar fukk ak ñetteel bi yoon nga xam ne ñu ngi koy jagleel lépp lu soxal wàllu risque professionnel mu doon itam ab occasion boo xamante ni daal nañ ci waxtaanee lépp lu soxal wàllu wér gu yaram ak itam kaaraange ci barabu liggéeyukaay yi. fonds monétaire international di eh, FMI am na nag ab jàngat eh, bu mu def eh, ba jébbal ko kilifa yi ci war a jot loolee nag mu ngi soxal matukaay yi nga xamante ne ni nag dañu koy teg ci wàllug koom ci Afrique naka noonu sunuy naataango rek daal nañ cay jaare nag laaj ki nga xamante ni moo toogal FMI fii ci Sénégal ci yeesalaat gi nga xamante ni nii jëm na ci wàllug poste ci wàllug koom naka noonu waaye gis-gis bi nga xamante ni FMI am na ko ci secteur privé yi dañu ci ànd ak Ibou Diouf. ci ni ñuy saytoo wala comme bi fii ci Afrique sowu jant ñu gis ne rek am na yëf yoo xam ne mën na gàllankoor doxalin bi loolu nag bokk na ci crise économique bi ñu nemeeku ci àdduna wërngal këpp leneen li ko mën ndax naxsaxal tamit mooy xiiroo ngaayo yi ñuy faral di nemeeku ci yenn dëkk yi fii ci Afrique nag bëri na dëkk yoo xam ne rek taxawal nañ ay jumtukaay comme fii ci Sénégal ak lu ñu duppee instrument de soutien à la politique économique. concernant l'instrument de soutien à la politique économique. bu ñuy wax ci li ñuy jëfandikoo ngir euh, jàppale bu baax a baax politique économique euh, daal dinañuy euh, pare ci juróom-ñaareelu revue ci janvier 2019 rapport bi sax nag mën ngeen koo am ci site bu FMI. te ngir ëllëg nag kilifa yi dañoo laaj ngir ñu xalaataat bu baax a baax ci ab programme bu bees tàq. d'avancer un nouveau programme. FMI faral di liggéey ak réewu Afrique yu bëri muy leen di laaj tamit ñu xoolaat doxalinu yenn entreprise yi fii ci Sénégal wax nañu ci mbiru post ak ni ñuy saytoo lépp lu aju ci politique fiscale. Comment faire la poste naka lañu ñu war a def ngir benn poste bu gën a am doole bu gën a xareñ jamono ji ñu ngi waxtaan ak kilifa yi xool ci yenn anam lañ koy doxalee. li ëpp solo mooy réew yu nekk fii Afrique dañoo war a def seen kéem yokk seen i recette ak wàññi li nga xam ne mooy ay dépenses fiscales te loolu booy xool sax daanaka téeméer boo jël mooy juróom-ñaar ya ca PIB ba. près de 6-7 du PIB par exemple pour le Sénégal. FMI fii ci réew mi bokk na ci ay ñi muy liggéeyal tamit waa kenes ak waa CIS di ñaari kuréel yoo xam ne rek dañuy def kemkattan ngir gën a dooleel secteur privé bi. nous travaillons avec euh, avec tout le monde. Mhm. nous échangeons régulièrement avec le secteur privé. ñun booy xool dañuy liggéeyandoo ak ñëpp ak secteur privé bi ak yeneen mbootaay ci yëngatu loole lépp ngir gën koo dooleel. l'environnement des affaires. pour tout le monde. zone de libre échange continentale ñu ne rek am na ci ay yokkute yu ci am ci atum 2019 ndax croissance bi ñu ngi koy xayma 3,5 pour cent mu yokku ci lu toll ci 3 pour cent ci atum 2018 fii ak 2020 euh, ñu jàpp ne rek dina am yokkute bu mucc ayib ñu xayma ko ci pour cent. jaajëfal ko Ibou Diouf comité bi nga xamante ne nag moom mooy toppatoo lépp lu soxal kon euh, julli géej gi di kuréel googee nag soobu na xat ci liggéey bi jullib géej gi boobu ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre am na na ab lël boo xamante ne defoon nañu ko lépp rek ngir xool yan matuwaay la jël ba julli géej ju ren ji gën a mucc ayib Cheikh Mactar Diouf moom mooy njiit la ñu teewlu ko ak Pape Fall. ko waajal loolu ñuy wax màggalu julli géej gi ndax dafa doon loo xam ne lu am solo la ci ñun ndax sëñ tubaa xaadim bu sol sëñ Muntaxa moo ñu ko dénk loolu tax ñun fu ñu toll ñoo ngi xool nu ñu mën a yokkee yëf yi pour li ma wax toujours ñu mën a gën a dem ca kaw rek ndax liggéey bi sëñ Mountakha moo ñu ko jox te mi ñuy suivre mi ñuy xool bis bu ne di laaj fu ñu toll donc du yëfu yëf bu ndaw donc moo tax ñun ci yëf suñu kémt lay kattan def yàlla nag mooy àggale mooy mottali waaye ñun ñu ngi mën ñëpp ko ciy def pour mën a jëmale yëf yi ca kaw a kaw a kaw a kaw waaye maanaam naal yi mën naa wax ne naal yi a na jéggi na dayu ndax xam ngeen ne sëñ Mountakha yoonu murit fi mu toll ay chantier la loolu murit loolu la baaxoo murit dafa baaxoo di am ay chantier di liggéey yoonu murit gis nañ chantier bii nag chantier yu mag yi la bokk ndax woote baatu yàlla yëkkati baatu yàlla ca kaw la yooyu amul chantier bu ko gën a rëy sëñ Muntaxa sas ñu ko kon nag naal yi mooy gën a defar lépp rek lépp baax te yëpp jëm kaw julli géej gi dem ca kaw àdduna bépp xam mangook euh, tàggat yaram la ñuy jeexalee rek ci tënk ak ligue européenne euh, des champions euh, lu soxal nag kon demi-finale ale ba mu ngi doon am nag jamono ji jeexagul sax diggante Tottenham la ak Ajax Amsterdam def nañu nag kon xaaj bu njëkk bi Ajax moo am benn bal ci dara beneen demi final aller bi ëllëg lay doon ci àllarba ji ca Espagne lañu koy amalee diggante FC Barcelone lay doon ak Liverpool FC bu Sadio Mané. mangoog foofu la ñu jeexalee xibaaru marax yi mbokk yi sant leen gërëm leen yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan ak Chérif Diop